rawatina nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ñoom moom xam nañ weekend waaw weekend moom xam nañ ko waaw Sénégal xam nañ weekend waaye nag rawatina ñi nekk ci diaspora bi ndax ñoom samedi ak dimanche repos la nuyu nañ leen bu baax a baax a baax a baax yéen a ci seen saali wala yéen a ngi ci seen place yi voilà jamono été lañ nekk kan yéen ñi nga xam ne yéen ngi ci eh, bitim réew sama mbokk yi nga nekk ci diaspora bi nuyu nañ leen bu baax a baax a baax jaajëfal nañ leen way leen di ànd ak ñoon rek saa su nekk voilà ñu ñëw ci euh, application yi nga xam ne nii yaakaar naa ni àdduna bi partout dans le monde néew na réew yum nekkul euh, le niveau le niveau président yi nga xam ne ni dañoo tombanteeg application yi amuñu sens voilà amuñu sens parce que li problème bi mooy application yi bari na lum defar waaye bari na lum yàq moo tax nag ñi nga xam dañoo topp tombanteeg euh, application yi yaakaar naa ni amuñu sens parce que li problème bi mooy lépp loo teg ba yaakaar ni yow aywa ñoom application yi teggi ko te application ay voyageur lañ déglu li may wax baax de waxuma sama xalaat de ay voyageur lañ ay immigration lañ parce que application bu ci nekk yi yëpp gisoo ci benn boo xam ne ni yu siiw yi ngeen gis nii ci écran bi nii gisul leen ci benn boo xam ne ni sénégalais ko liggéey benn rek bu ci am doole bu ci Sénégal liggéeyoon rek àdduna bi bëgg ko rek léegi ñu tëj ko bul son waaye ñi ko liggéey ñana ñi ëpp puissance ci àdduna bi ñi nga xam ñoo ñoo ñoo ñoo gën a am ñoo gën a ëpp puissance ci àdduna bi ñoom ñoo ko liggéey muy ñan américain yi wala boog ñu ci bari voilà wala yu ci bari ñoo ko liggéey chinois yaa ngi jéem TikTok chinois ak yeneen ak yeneen ay réseaux yoo xam ne ne chinois yi ñoo ngi koy liggéey voilà mais daal li ma la mën a xamal mooy yi gën a siiw moom nit ñi di ca gën di nekk ñoom américains yi ñoo ko liggéey seeni application la yoo xam nag ay voyageurs lañ fi mu toll ni yii ngeen gis ni application bu ci nekk ñoom ñu ngi ciy gañe xaaris bu baree baree baree bari muy demaat ci seen dëkk te bougé wun ñoom ci seen dëkk ndax ñoo yabal seeni application ci monde bi partout dans le monde wala fo bari dugg na fi voilà léegi nag euh, euh, mu nekk nag ay application yoo xam ne ni ñoom seeni borom defar nañ ci loo xam ne ni bu la neexee côté bi yàq nga yàq bu la neexee côté bi defar nga defar ndax dafa am ñaari côté yëpp voilà léegi nag euh, boo xoolee bu njëkk li daan am bari na ay gouvernement yu fi jaaroon Eh, daanaka mën naa ni ñu bari daan nañ ko def te dara ñu bëree bari duñ xam voilà lu dul rek ñi nga xam ne ni eh, ay télévision yu mag la yor wala lu dul rek seenu national bi nga xam ne daf fi nekk ak rajo bi foofu ngay mën a amee ay information ak i xibaar waaye nag depuis bi nga xam ne àdduna mi ngi dox jamono di dox nit ñi di ànd ak jamono di dox wala ni ñi seeni xel di gën ñuy liggéey yoo xam ne nii bu ñu doxalee ci kanam tuuti rek mën na am lu mu leen indil lu mu leen apporteel mën na mën na leen a def ay milliardaire voilà léegi nag ci la ñu mel ni ñoom euh, Max ak euh, ñoom Bill Gates xam nga si seen i pexe ci seen i xalaat voilà ñu xool liy doxal àdduna bi nan lay gën a gaawee voilà ndax xam nga euh, lu mel ne rajo gars yi dañ doon xaar foofu la ñuy jëlee information yi lu mel ne télé loolu la ñuy xaar muy national bi léegi nag yooyu noonu ñi nga xam dañoo tombante yooyu yenn kii dawul génn voilà yenn information yi dawul génn voilà léegi nag bi nga xamee ne nag àdduna toll na fii mu toll ñu ngi ci vingt et unième siècle deux mille vingt deux euh, réseau yi yëpp ngay gis ni tey muy application yi gën nag di grafe mbir mi maanaam euh, mu nekk application yoo xam ne lépp looy def moom moo ci gën a gaaw bu fekkee da ngay message WhatsApp wala da ngay tàggee wala ku mu ci réseau yi la gën gaawee kon loolu dafa nekk loo xam ne nii euh, àdduna moo fa toll kon nañu bàyyi xel bu baax a baax xam ne na day gën a avancé léegi nag solution bi ñu war a jël waxoon naa ko dinaa ko waxaat tàggat ay ndaw xamal leen lan mooy internet xamal leen li ci war a génn ak lu ci warta génn xamal leen li ci yàq ak lu ci dul yàq 94 Walf Sénégal li leen leen